Sud Il est 13h. asalaamaaleykum mbokk yi benn waxtu ci Sud FM xibaar yi ñu lëkkaloo suñu yaa diwaan li ci gën a bokk na ci wàllub euh, làmb ñu nekk ci euh, dëcc ndax ki di ancienne gloire euh, nekkit mentero ba Balla Gaye 2 moo ñàkk bakkanam Balla Gaye 1 tey ji la ñàkk bakkanam gannaaw ab feebar bu yàgg bu ko daal di tëral dinañ wax tamit ci wàllu wàllub éliminatoire CAN 2021 Sénégal tey jii day jongante ak Guinée Bissau te ci ngoon lay doon muy ñaari euh, confrontation ngir rek euh, gaynde yi waaye tamit ñi di joxtus yo Guinée Bissau dinañ ci ànd ak Ignace Ndeye ci wàllub politique di woote ci ab kujjéegu yaa ay waxtaan ñu ngi ci pour rek daal di amala plateforme boo xamante ne rek dina tontu kii di njiitu réew mi Macky Sall ak partem loole di xalaatu Lamine Ba tey ji moo nekkoon ganub objection ak Bayo Margué dinañ ci toftal yeneen i xibaar buñ ca noppee dalal Marie Rosalie Ndiaye mu fàttali ñu xibaar yu gën a fës ci ay ci benn ci benn ci ay bés di wàllub rétro bisimila Sud FM ci kàddu gi Alassane Wade moo nekk ci euh, sottandikukaay bi mbokk yi dal leen nag euh, jàmm xibaar yi dañu koy doore ak euh, faatu ki fi nekkoon bërekat bu mag di Balla un 1 chroniqueur sportif fii ci Sud FM El Hadj Pape Dia dina rek ne kookee di Balla un 1 mënoon nañ ko ràññee rek ci courage am ak rek yaatubaayam dañ koy dañ koy déglu moom El Hadj Pape Dia champion bu mag la fekk naa carrière am fekk ay bëreem fekk naa bëreem ak Mbaye Cissé Stade Iba Mar Diop fekk naa tamit bëreem ak Boy Niang fekk naa bëreem ak Manga deux deux fois premier combat bi dañu machine yi deuxième combat bi jël ko Manga daane fekk tamit bëreem ak Mame Dimbane bëri bu rëy bu mu bëri ak Mame Dimbane kooku dafa nekkoon champion bu mag nekkoon encore écurie wàllu mu ñoom Alioune Seye Mohamed Ali ak bokkoon nag ñi nga xam ne dañu taxawal maanaam écurie Balla Gaye numéro un moom ci boppam moo ko taxawal école bi formé ci ay champion moom Balla Gaye numéro deux champion bu mag boobu nga xam ni biir xale yi ci dàq bëri ci bokk sinon ci dàq bëri donc lu métti la boo xam ne dañuy gërëm sunu borom rek te di ñaan yóbbu ko àjjana waane du ñàkk lu mu wàññi ci écurie bi ndax liggéey bu mag ba mu ko def maa ngi fàttaliku daf ma daan wax ni Balla dama ko daan yee dama teel a seetlu ci moom xam ne dafay doon champion ma jël ko ci bàyyam di am ma yóbbu ko

bëggoon rek la ko Balla di defal maa ngi fàttali ko bëri ba na mu demee ak na mu ko ëndee ak ndam la mu am ak tamit keroog bi ñu defee Balla roi des arènes ndam li ci am mu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xale àjjana waaye comme li ma la wax équilibre bu toll noonu bu ñàkkee ko toll noonu il faut mu feeñ waaye li ñuy ñaan mooy yàlla na yàlla def li mu teg ci loxo Balla teg ci loxo yeneen xale yi équilibre bi tamit doon équilibre boo xam ne bu ñu ràññee la mu ngi noonu Balla Gaye di ñàkk bakkanam ni ki tey gannaaw euh, feebar bu yàgg bu ko tuddaloon euh, ñu wax ci wàllub éliminatoire CAN 2021 euh, tey jii Sénégal di joganteeg Guinée Bissau dañ ci ànd ak Ignace Ndeye Ignace ñu ngi lay nuyu. Xadi ah, maa ngi ah, ah, tey jii dimanche retour bi Sénégal bu ci amee victoire rek mun na rek qualifié. waaw wax nga dëgg Khady léegi waxatuñu sax CAN deux mille vingt et un parce que xam nga mbas bi yóbbu na ko ba deux mille vingt deux ndax Sénégal dina mën a am visa am tey ci ngoon bu match bi jeexee euh, pour Coupe d'Afrique des Nations deux mille vingt deux wala boog Guinée-Bissau day pusaat euh, li ñu mel ba jëmmi jamono loolu mooy ñaari laaj yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko te moom moo nar am ci match bi nga xamante ni euh, tey ci ngoon diggante Sénégal ak Guinée-Bissau ca Bissau fii. Euh, benn poñ dong la Sénégal soxla wax nga ko léegi pour euh, mën a am ticket pour qualifier maanaam dem Coupe d'Afrique des Nations ndaxte poñ boobu su ko amee dina am euh, fukki poñ mu dese ko ñaari match te su boobaa ñetti équipe yi déjà am na ci yi nga xamante ni dootu ñaari dootuñu ko mën a ci dab ci li nga xamante ni moom mooy éliminatoire waaye nag loolu du yomb ndaxte Bissau Guinée ñoom xam nañu ni Euh, tey ci ngoon aussi euh, fi nga xamante ni moom mooy ci stade vingt quatre septembre mu di vingt quatre septembre mu di fi nga xamante ni foofu la ñuy euh, footballé match bi bokk na ci match yi ñu mën a wax ci wolof mooy seen sànni tàccu parce que soo xoolee tey nii suñ ci amee jël li nga xamante ni jëlee nañ ko ci rek mun nañu déjà takk seen bagage bañ a séentu li nga xamante ni moom mooy Cameroun deux mille vingt deux ba tax na match bi nag. Euh, dina am li nga xamante ni euh, moom moo di euh, beneen connotation parce que déjà presse pression bi commencé na kii di entraîneur Guinée Bissau dégg nañ ko moom wax na déjà déclaration di artu ñi di gaynde Sénégal yi ne leen Euh, fii ci Guinée Bissau ñoom suñu fee ñàkk mat depuis moom bi mu yore euh, équipe bi loolu nag di artu wala bokk yi nga xamante ni moom moo di euh, signal ki xamal loolu mooy entraîneur Guinée Bissau di Basirou kande waaye di bataille psychologique bi nga xamante ni déjà gaynde yi ñi nga xam ne ñu ngi joué ci ay club yu mag xam ñu ni li nga xamante ni moom mooy genre situation bi ni mel gaynde nag ñoom xam nañu seen warugar te fu fekkee ni aussi dañu jàpp ni équipe bu mag lañu équipe bu mag moom Euh, warul am ay jafe-jafe dem à l'extérieur euh, daal di gagné foofu loolu sax moom mooy euh, melokaan yi nga xamante ni mooy équipe yu mag yi gagné à domicile wala tamit mën a dem à l'extérieur daal di gagné ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Sadio Mané ginnaaw bi ñu wàccee ci Bissau démb am nañu yaakaar ñoom ñëpp xam nañu leen di xaar waaye nag xar am na beneen mbir bi nga xamante ni moo tàmbali woon am ci match bi déjà dafa mel ni Bissau Guinée ñu ngi commencé jouer match bi naam ci Bissau am na effervescence sportive bi nga xamante ni ndaxte démb rek ci wàllu entraînement euh, lii di gaynde yi amoon na tuuti rëkk-rëkk euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy di euh, responsable Bissau Guinée am na sax ay fédéraux ñu bloqué woon ci nga xamante ni moom mooy ci buntu stade bi ñu ne déet ñu ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy journalistes si dañu war a am protocole sanitaire maanaam dañ leen war a testé ci feebar bii di Covid 19 ku ci positif moom bul xalaat dugg. Euh, ci li nga xamante ni moom mooy stade bi ba tax na journaliste sénégalais yëpp délégation yëpp dañ leen mujjee testé li nga xam ne mooy Covid 19. heureusement amul benn journaliste bi nga xam ne daal di négatif di ay protocole yi nga xamante ni ñu ngi ko xamoon euh, maanaam FIFA ak CAF daal ko tëral. ci délégation yi nga xamante ni ñooy ñëw mooy équipe yi ak seen encadrement technique waaye nag ci journaliste yi moom ñu ngi ko doog a gis ci wàllu Guinée Bissau loolu sax tax na ba yenn ci journaliste sénégalais xam seen statut xam ni jamono yi li nga xamante ni moom mooy corona bi laalu leen loolu yëpp bokk na ci ay paramètres yi nga xamante ni euh, tey ci ngoon dina am ci euh, stade euh, bu 24 septembre bi nga xamante ni Bissau Guinée ñu ngi mobiliser naam huis clos la ñu ngi mobiliser mais ñoom déjà xam nañu lu leen di xaar ndaxte suñu leen gagné tey équipe Sénégal daf leen di largué bu sori ñoom jamono yi. nekkul sax Sénégal la ñuy séntu mais bi nga xamante ni euh, moom moo leen xaw a jege moom la ñuy bàyyi xel bu baax a baax te loolu dafay jaar ci ñu am un euh, euh, résultat positif bi nga xamante ni war nañ ko mën am donc loolu la ñu mën a jàpp tey xadi seen ci match Sénégal ak Guinée Bissau gaynde yi pare nañu 16 heures dinañu xam ndax Sénégal déjà dina composté tikkeem mu dese ko ñaari match ñu mun a feex dèjà wala book Bissau Guinéen yi dañuy puusaat li ni mel jëmi jëm relancé wu. Mhm. ci wàllu compétition bi diggante match Sénégal Guinée Bissau dañu jàpp ni ci même condition lay am ci wàllu. Covid 19 bi mais tamit ci tàngoor bi nga xamante ni nemmeeku woon nañ ko Thiès ci fan yii ñu ñu génn ñoo seen. Mhm. ñu lay jaajëfal Ignace Ndeye euh, donc match bi tey ci ngoon la bu ñeent waxtu euh, jotee ca Guinée Bissau supporters yu sénégalais ñoom jàpp nañu ne euh, Sénégal mooy jël ndam li bu ko defee rek mu daal di qualifié mën a bokk ci Coupe d'Afrique de Nations atum 2022 waaye nag ñu ngi woo gaynde ñu bañ a naagu bañ a xeeb ceeb joxtu si dañ ci ànd ak Odile Minkilaan loolu c'est sûr et certain. doo dem possible que Sénégal qualifie. ñoom ñëpp ànd ak yaakaar ne Sénégal dina qualifié tey ci CAN 2021 bi. ñii di supporter gaynde yu Sénégal yi nag nee nañu tey gaynde yi dinañu dooraat ñii di joxtus yu Guinée-Bissau yi. Sénégal équipe bu mag la malgré que Guinée-Bissau tamit du équipe bu tuuti. waaye eh, boo xoolee qualité jeu bi du benn Sénégal tamit moo ko moo ko ëpp expérience malgré que léegi équipe bu ndaw amul mais Sénégal moom am naa yaakaar dina ko dóor te am naa yaakaar Sénégal dafa doon équipe boo xamante ne war na mën a dem fu sori. équipe bi macha allah Sénégal du équipe bu ndaw mais xam nga équipe Bissau bi tamit du bu ndaw lu ñuy joué kay moom. man kay kontaan naa ci torop bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Alseni Diallo di kenn ci supporteru gaynde yi nee na gaynde yi fexe ba bañ a xeeb jurtu ci Guinée Bissau yi. Sénégal dafay mel ni dañuy fubal ak nit dañ koy koy xaw a minimiser mooy question de rigueur bi nga xamante ne moo war ci joueurs yi moom la lañ dem def équipe buñ la waxee sax yow yaa jël paie sax mondial tu dois fournir de l'effort parce que lu tax may wax loolu parce que da ngay xool tout temps équipe bi nga xamante ne dañuy yaakaar ne Sénégal da koy dóor facilement. moo ko indi jafe-jafe Sénégal am na match yu muy perdre et pourtant affaire bu ndaw moo koy perdre parce que manque de pression moo koy perdre la encore euh, on ne doit faire trop de pression sur Aliou Cissé donte sax Sénégal amoon na ndam ci kanamu Guinée-Bissau fukki fan ak benn ci weeru novembre ci ba ñu amal match aller bi waaye ñi nga xamante ne ñoo safoo football bi tey topp équipe nationale bi nee nañu am na ay rëkk-rëkk ci équipe bi te faw ñu xoolaat ko. mën nañu yokkaat bi. baax na défense yi baax na macha allah. milieu bi rek la ñuy renforcer tuuti rek. xam nga loo am am war nga yokkaat. il faut am lu yore. milieu de terrain bi dañ ko war a ñongalaat sax joueur yi man dama gis ni faaw ñu bañ a teg seen yaakaar yépp ci Sadio Mané kenn ku ci nekk da nga war a béy sa waar. comme le le meneur de jeu. Sénégal wàññi na ba noppi juróom-ñeenti poñ kon tey jii bu amaatee ndam ci digganteem ak Guinée-Bissau dina qualifié ci CAN 2021 bi. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. fukk ak benn simili moo tegu ci benn waxtu xibaar yi di wéy ci Sud FM rajo ñu tàbbi ci wàllub politique ak waa PDS di woote ab kujje gu yaa président mi ngi ci liggéey ba tax na tàmbale nañu sax ay euh, waxtaan ngir ñu teg ab plateforme boo xamante ni mooy andi euh, tontu ki di euh, Macky Sall te loolu du am benn compromission tey ji la ko Lamine Ba daal xamle moom mi nekkoon tey jii ganub Baye Oumar Gueye eh, ci objection déglu ngeen ko ci suñuy eh, xibaaru tubaab ak aji Fatou Bare ba tey ci wàllub politique ci Tambacounda foofee nag mu ngi mel ni APR nag euh, dañuy fay waaj xaajaloo ndax euh, amuñu benn euh, manko ndax daal nañuy amal ñaari assemblée ngir rek gën a woote foofee seen membres yi moo tax te ñu ngi ko amal ci benn waxtu dañ ci ànd ak Boubacar Tamba. gaaw gi fii ci Tambacounda waa APR wanewaat nañu ni ñoom daal manko daanaka lu leen jafe la ko coordonnateur départemental bi di député maire Mame Balla woote na woon ab ndaje bu mag. stratégie bi ñu koy Sénégal te mi ngi koy mettre sur l' étendue du territoire national Tambacounda mi gouvernement parce que nga ubbi yaatal ko dugal ci significative pour réew mi avancer loolu aussi parti bi un a mi ngi nii il faut que donc ñu woote pour la sensibilisation pour la massification de la coalition. leen ba jooje fekk waa jeune leader du docteur Diallo doon amal itam beneen ndaje Salif Samba Diallo. On a repoussé, repoussé, repoussé. Il est temps maintenant de fixer la date des élections locales. Président na tëgg làmb ji yëf yi jeex. Bu dem APR benn candidat lay am ñun nous sommes candidats à cette candidature là. Je dis au président de la République de faire attention à la gestion des équipes qui sont sur place parce que actuellement la plupart de ces équipes c'est que ils ne vont pas revenir et par rapport à sa ñu ngi def ay plan yoo xam ne dañuy saax saaxee budget wu yi budget wu conseil départementaux yi lu weex te wóor moo di ne ñoom waa APR fii ci Tambacounda buñ boolee seen doole kenn du leen attan Boubacar tàmbaloon ca jokkoo fii ci Tambacounda rajo Sud FM quartier ak nekk ci département bu euh, Bignona militant wu Pastef yi nag euh, daal di organiser wu bu baax a baax ngir gën a dëgëral résultat yi nga xamante ne am nañ ko ci élection présidentielle yi ba tax na daal di nañuy woote euh, mbooloo ni ki démba ngir rek tontu APR bi nga xamante ni temps yi mu nga fay def ay action politique yu bëri dañ ci ànd ak benn Michel Kanfouti solo si nga xam ni commune Kartiack am na ko ci politique tax na ba patriote bi ñoo nay daal di mobiliser ngir bañ collectivité locale boobu nga xam ni foofu la waajuru Ousmane Sonko cosaano daanu ci escarcelle mouvance présidentielle bi ñoom nag lenn rek a leen soxal fu mu toll nii di confirmer résultat yi nga xam ni moom la ñu amoon ci présidentielle bi Alioune Camara mooy coordonnateur PASTEF ci commune bu Kartiack. Macky Sall veut faire croire aux Sénégalais qu'on ne doit parce que ku jub la benn yoon a askan wi waaye askan wi ci jikko la ñuy fale te jikko jooju gisuñu ko ci Macky Sall gisuñu ko ci képp ñi ñi ñi mu àndal. Macky amul benn chance ci commune Kartiack. boo xamante ne da nga yaakaar am ndam ci commune bi. jógeel si Macky Sall dem feneen fu dul Macky Sall parce que nit ñi ñun fii suur nañ ko. donte sax APR ak ay alliés ñu ngi multiplier seen sortie ci zone boobule waaye nag Pastef seen xel la ngi daal ba léegi ndaxte ñoom nee nañu responsable mouvance présidentielle bi amuñu benn argument bu ñu sukkandikoo ci kàddu coordonnateur département. départemental bu PASTEF Yankuba Sagna. politiquement ñun ñoo nekk euh, donkaas ga euh, dañuy interpeller ci yu bëri mais principalement dafa am ñu ciy dugg si di leen wax wax woo xam ne wax yu wax yu kenn xamul fu mu jógee. waaw nu ñu mënee am loolu ba pare nga taxaw ne ma man aw ma candidat waaye li may leeral foofu rek. benn mbir la li ma wax gars yi ñu tontu leen. Yankoba Diémé nee ne Macky Sall moo téye mbir mi. ci meeting bu ñu daan amal ci jànki ñu bootu ci Pastef daal dinañ ciy profité woo mi mu fixé datu élection locale yi. ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor benn Michel Kanfoudi pour Sud FM. ñu koy jaajëfal benn Michel Kanfoudi mbokk yi nag ñu dal eh, ci pàcc bu mujj bi ci eh, xibaar yi di wàllub rétro xibaar yu gën a fës ci eh, benn bés ci ay benn bés yi dañ ci ànd ak Marie Rosalie Ndiaye. mbokk déglukat yi dal nag jàmm ci seen jotaayu xibaar yi gënoon a fës ci ayu bës bi ci Sud FM seen rajo. ñaari xale la ab poto faat talaata ca xaar yàlla lu ni mel nag indi tiis ak njàkkare ca askan wa fa yeewoo tax nag ndaw ya maire ba futu ne dinañu jóg ci seen kaaraange ngir mën a aar seen bopp Odile Minkilaan ci nakar ak tiis lañu fekk njaboot yile ca ci xaar yàlla ci bi nga xam ni ay poto yu ñu defaree beton moo daanu ci kaw ñaari ay ndaw ñu ñàkk seen bakkan yaayu xale yi ñàkk seen bakkan taataan ay kàddu ci ñoom doon lu diis waaye ñu ngi jéem a nettali ni ñu jotee xabaar bi lee በጌነ ተመስገን አይ ቦታ ምስክር ነው Terima kasih. mu ne foo nekk ma ne maa nijaayu kenn ci xale yi nga xamante ne génn nañu àdduna moom sax jarbaatam bile juróom-benni at la amoon mu ngi dellusiwaat ci anam bi xale yi faatoo. xale yi day génn fii rek dem si terrain bi oto bi mu daanu ci kaw xale yi mu ñëw wax papam papa boy bi sàmm mu woo ko wax ko. léegi kii daanu na sa doom bi dee na papam mu génne solwul mbubb sax dem foofu xool fekk booy bi dafa dee foto bi ci kam la daanu gannaaw nag tiis bi nga xamante ni dal na ci kaw waa Xaar Yàlla ndaw ya dëkkee ci bii quartier taxaw nañu temb ngir rek manko daal sàmbal seen bopp seen kaaraange. terrain fii nii parce que yenn gaale yi garage yi fi jege yooyu moo tax ñu bàyyi yoon yi mais fii yëpp gaari yi ñu fiy fubale fii dox koy baare gars dem dañu meroon affaire bi fi amoon moo tax ñu baare ko pour oto yi bañ fi jàll loolu jeex na gars yi léegi nañ ñëpp ñoo ngi siy waa xar yàlla ñëpp parce que fii woo war nañ daje parce que loolu la waajal nii parce que amatul oto yi fiy jàll di fiy gaare fi dul bàyyee yooyu noonu moo fi jeex. waa xaar yàlla di xaar ñu indi leen ay leexal ci poto béton yi nga xam ne teg nañ ko fa ba mu rës ci kaw ñetti xale ñaar ñàkk ci seen bàkkan kenn ki ame ci ay gaañu gaañu. téeméer ak juróom fukki ndaw doon jublu ci wàllu émigration clandestine la ñu delloo si fii ci mim réew jëlee leen ca réewu ak Espagne ñu wàccee ca aéroport international Blaise Diagne dañoo jëloon ay gaal juróom benn fan ak juróom ñaari fan ci weeru octobre bi ñu génn ñu yëgle sax ne am na yeneen ndaw yoo xam ne dinañu leen jëlee ca yooyee dëkk mel ni Espagne delloo si leen fii ci mim réew Moustapha Sall. lu toll ci téeméer juróom fukki ndaw yu leen ñu jóge Espagne ak Maroc ñoom nag ay gone yu nga xamante ni dañoo doon bëtt géej gi maanaam dem Barça wala Barsaq ñoom ñoo teer si fii ci aéroport bu Diass gone yi nag nga xamante ne dañ doon wut ëllëg gu ñoŋ ñu ci bare bare ñu ngi bàyyee diwaan gu mel ni fii Mbuur Touba walla Kolda ñoom nag ñi ngi jëloon gaal gi juróom benn fan jàpp juróom-ñaari fan ci weeru octobre gële ñu weesu gannaaw ñi agsi si tey bu ñu sukkandikoo ci xabaar yi ñu jot am na yeneen ndaw yu nga xamante ni daañu leen delloosi ci fan yi ñu dëgmal fii ci mim réew Moustapha Sall fii ci Mbour ngir rajo Sud FM. démb lañu doon màggal journée mondiale du diabète bu atum 2020 ñu jaare fa di xamle ne daleeku atum 2021 li nga xam ne moo di insulin nguurug Sénégal dina ko jël en def ci ab subvention maanaam koppar goo xam ne dina ko gën a yombal docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye di directeur général de la santé publique di yëgle ne insuline bi nga xam ne dafay njuroo ak stylo dinañu ko gën a développé ngir gën a yombal mbir mi ñu koy jëfandikoo ñu teewlu ko ci micro Josette Kali. xeex bi tey ministre de mu ngi ci ak service am yëpp bu ma nee service gis nga thème bi tey dañ ne infirmier yi ak infirmier tey nan lañu nekkee di toppatoo mais ñi nga xam ne ñoo am feebar bu métti bi nga xam ne mooy ne jabet feebar bu cher la bu chéré cher na ci xaalis mais aussi cher na ci nit. parce que boo ko amee xëy na sa xel daal toujours yaa ngi xalaat ay complications bi nga xamante ne moom la ñu gën a tiit mooy bi nga xamante ne dañuy dagg cër yi nga xam ne maam yàlla mooy la ko may donc dangay am benn problème psychologique. mais wéetuñu si ndaxte xam nga Sénégal ay at a ngi nii Sénégal jël na fële teg insuline animale am li ñuy wax insuline humaine mais 2021 incha allah su ko yàlla nangoo euh, son excellence le président de la république dafa yokk benn euh, subvention. pour ñu mun a am li nga xam ne mooy analogue de l'insuline nga xam ne day mel ni ay bii xam nga yooyu day tax nit ki di mun a dem fi mu war a dem yëpp parce que feebar am na mais feebar dina gën a métti bu fekkee ne faj bi daf lay teg benn place mais bu fekkee ne yow yor nga loolu foo munti nekk di nga fa nekk moo xam fii ci taax yi la comme dëkku àll bi mais euh, président bi association bi wax na yeneen nee na ñu dolliwaat mais ñu di dalal xelam di wax ne hypertension dafa bëri loolu lu muy ànd ak diabète feebar yu bëri yu ñuy wax maladie non transmissible am na lu muy ànd ak diabète moo tax ñoom ñëpp la ñu boole tey président ne nañu étudier ak yeneen feebar yoo xam ne experts yi ñëpp ñu ngi ànd ak la santé action sociale di ci xalaat ba nga xamante ne feebar gaa du ñàkk mais dañ def ba nga xamante ne ànd communication parce que malade bi ci boppam dafa a xam lan moo ko dal dal na ko nan lay def ba nga xamante du am complication ba léeg-léeg dañuy dagg ci moom ay cër te xam nga ne ku ñu dagg ci yow ay cër dina am métit boo xam ne métit xool boo xam ne même bu fekkee sax ñëpp ñu ngi la wër dina am lu la metti donc bu ñu duggee ci koor gi yéen ñëpp da ngeen jot ay SMS daal ne ah moytu leen moytu leen lekk yi saf suukar trop lekk yi saf xorom trop lekk yi bëri graisse de leen bouger même bu ngeen mënul dem sax si terrain yi wala si stade de sport yi fexe leen toog fi ngeen toog lu mot ak fanweeri minute fanweeri simili ngeen yëngal seen yaram même bu fekkee sax mun leen a dox ngeen yëngatu loolu dina am solo li ñuy wax daal mooy ne xel war naa mun a dal. ci wàllu politique ndaw yi fare ci grand parti bu El Hadj Malick Gakou nekk ca Jidda Caaroy kaw xamal nañu seen njiit ni li leen gënal moo di mu des ci kujje politique gi ñu bàyyi yooyu kàddu gannaaw ba El Hadj Malick demee woon ca poste de santé bu Jidda Caaroy kaw doon fa jagleel lu toll ci ñaari junni ak juróomi téeméeri di kit d'accouchement moom Malick Gakou di leen dig ne dina indi ay tontu ci lu ni mel ngir xamal leen ndax dina fekk ji njiitu réew mi Macky Sall ci nguuram wala déet ñu teew teewlu ko ci micro Moussa Thiam. xam nga dama wax léegi ne sama xale parti bi xam nga fa ma jógee ak fii suñu parti dafa nekk parti bu rëy parti bu rëy nag tudd grand parti c'est normal que expression de point de vue yi mën na bëri waaye dama wax xale yi ne leen fii ma nekk nii. taxaw fii ci biir maternité bii wax dëgg yàlla rus naa fi waxu politique. rus naa fi wax waxu carrière politique rus fi wax waxu ambition politique ndaxte fi ñu taxaw ay jigéen da ciy faatu ci jur doom euh, te man dafa nekk loo xam ne daf may intéressé. mais daf may intéressé aussi parce que dama yaakaar ne lii may def ci politique lii may def nii moo ko ëpp solo ndaxte lu may def ba jàppale jigéenu Sénégal benn jigéen bañ a faatooti lu may jàppale famille yu Sénégal ba kenn bañ a amati jaaxle moo ëpp solo fuuf lii nga xam ne moom ay jéegu ci politique moo tax li ngeen may laaj am naa tontu bi waaye dañuy xaar beneen occasion ñu waxtaan ci parce que nag. li dañuy wax ne waxu politique dafa am fu koy war a waxee li ngeen may laaj nag ci wàllu politique xam ngeen ne man Malick Gakou laa tudd eh, te wax dëgg yàlla sénégalais ñëpp xam nañ ne man la may wax ak la may def ragalu ma ko ñemet léegi nag xam naa ne yéen affaire politique moo leen intéressé affaire politique ngeen ma bëgg a laaj waaye sawar naa ci lool pour tontu leen ci affaire politique waaye dafa fekk ne fii ma taxaw wax dëgg yàlla jomb naa fay wax waxu politique ragalu ma ko de mën naa ko mais dama ko jomb parce que mosuma dugg ci maternité di wax waxu politique loolu moo tax sama xale parti yi nga xam ne ñoo dëkk ci di jaaree kaw li ñuy wax nii dégg naa leen waaye nag grand parti dafa nekk parti boo xam ne nii parti bu mag la parti bu mag la bu ko defee lépp loo xam ne nii dafa concerné àdduna parti bi dafa fekk dund parti bi lu ci jot rek daañu ko wax waaye du ma ko waxee fii bu ma jotee dinaa ko wax fi ma ko war a waxee la ma ci war a aussi Sénégal daañu ci wàllu tàggat yaram éliminatoire 2022 Sénégal jël na ndam li àllarba ci lu ñu duppee première manche bu ci doon jongante ak Guinée Bissau mu door ko ñaari bal ci neen mu ab ndam loo xam ne nag day tax Sénégal di wéy di jiitu ci groupe bi mu nekk ñu teewlu kàddu yi nga xam ne moom la coach bi Aliou Cissé fësal gannaaw jongante boobile. tout d'abord euh, féliciter les joueurs qui étaient sur le terrain euh, daal di féliciter sama joueurs yi ci match bi nga xam ne bu sérieux la waaye itam métti woon na ci jamono tàngoor bi match bu compliqué waaye wane nañu ab xarañte ba ñetti points yi ñu daal di koy jël bii nag premier mi bi rek la deuxième mi-temps bi euh, ca Guinée lañ koy football ci dimanche yi bari na itam ay rëq-rëq ci wàllu technique yi nga xam ne sax euh, dabaatal nañ ko ci mujj gi ci ñaareelu euh, mi bi ndax dañoo jàkkaarloon ak ab équipe bu Guinée bu tëral stratégie am kon nag métti woon na dara nag du yomb ci match Sénégal yi ndax victoire dañ koy waajal faw ñu liggéey ngir daal di génn. bokk déglukat yi yile xibaar gënoon a fës ci ayu bés bi ci Sud FM seen rajo ma leen di jaajëfal jox leen dig daje dibeer bi di ñëw. mbokk yi fi la ndax képp xibaar yi di leen jaajëfal seen ànd rajo Sud FM jaajëfal Alassane Wade mi nekkoon ci xarala gi ñu yendoog jàmm.